mais su dee ñun duñu ko def su dee ñun duñu ko def dañoo fekk li yàlla moom muy domaine réservé am ñu atteel ko ko atte ko ci bakkan atte ko ci réer atte ko ci ñàkk yar atte ko ci ñàkk kers te kooku catastrophe la te sunu borom li mu wax moo nekk diggante bu xat la parce que nit sax lu lu lu doy waar la nga am yéene jubbanti ko wante fekk na boo ko jubbantee am koo gaañ ci njabootam foofu nag danga wara a bàyyi sa xel ci sa bop da di jubanti nit ba xey dug ci kàmb dara jaru ko te lolo xew legi nga gis bok yonenti bi ni mu tollu ci yalla yalla jox ko pinchu mo xamni def ko ni na ci wote te bu mu forcé ken bu mu forcé ken ñu bari tuddu nañu me xamu ñu jihad jihaat mooy firi fayu mooy ku ñu yàgga ñu naan ko muñal muñal muñal ba mu xëy fayu loolu mooy jihaat xaqiqam mooy loolu yonent bi bi ko yàlla ne fayul automatiquement dafa fàtte xaqiqa ndax bokk yi dal di dellu ci aada bëgg faj mbir mi fajunu aada te mooy ne xeexkat yiy def xare gi yow boo amee dara ñu nangu ko daw lekki ko yàlla ni ko taxuma laa jóg bokk sa bakkan na tax nga jóg yàlla ko wax yonent bi te wax na dëgg bu ko bàyyi woon mu tas àdduna ba tax na kon lu jafe la boo ca àggul nga bëgg a faj yenn nggak ca àggul موتخ سيدي الحاج مالك دان وخني منتلال مفيريل سما بوب القران موما غنا دول ما ديكو فيريلو firil sama bopp alquran moo ma gën a doy ma di ko firilu ndaxitam itam ñii ma gis dafa mel ni rekk ku ñu firil alquran bàkkaar bu day noonu daan la ci topp te loolu am na xam nga amul kenn ku mën a weddi ni du alquran langage am waxuma sax ni bu universel mais bu interuniversel la waaye boo toogee ci sa taatu Dakar génnuloo sa xew amuloo yittey jéem a xam lu xew boo dee firi alxuraan fu mu yem ca sàkket wa du ko génn te kon àdduna tukki loolu moo taxoon mu wax ni du nangu firilu alquran daf koy firil boppam te mën na ko mën na ko def na ko li tax mu man ko def ko ah yàlla nag léeg-léeg mu sedd nit lu mu waxul fu mu ko jaarale waaw ah, am na lu nga xam ni bu dul leer doo ko mën a dégg am na lu nga xam ni bu dul yàlla doo ko mën a dégg firil alquran sa bopp te xaqaayiq yi ci nekk yépp nga dégg ko ni nga ko war a déggee te nekk ci réewu aada am na lu la yàlla defal loolu rekk mooy li ci nekk looloo tax mësul nangu di firiloo alquran ku ko déggoon la nag waaw moo tax mu daan gàttañ lu ci yu bare bare sax tabarkalla la doomu soxna yaa ngi ci réew mi am na lu leen yàlla may waaye moom itam am na lu ko yàlla may waaw li am solo ci ekoolam mooy xaqiqa moo ko gën a laada ci la dëgg ba firil boppam alquran Sëriñ Aline Gueye nee na bi ñu ñëwee ci moom fekk nañu am ay jikko ci ni ñu dégge diine ñun te booba lañu gënoon di tiitaroonte mooy sa njàpp suba nga julli ci gee kooku catastrophe la loo koy dolee kooku catastrophe la ku la ko sant sa njàpp suba nga ni danga ciy julli gee pour wane ni rekk nitu diine nga foo ko teg ah? te mu wóor la ni ku bëgg tuur ndox di julli du teewlu ku bëgg dem gannaaw kër di julli du teewlu mënul nekk waaye bëgg gi nga bëgg rek sa bakkan ak wane ni loolooy sa diiné nga ni njàpp bi nga japp ci suba mom ngay jullé gee mën na la indil jangoro mën na la indil jangoro yoyu def ko dul mat parce que itam diiné ëpp na loolu diiné ëpp na té tabarakallah tabarakallah mujj na yooyu ñoom ñëpp ñu génn ci ku bëgga a tuur ndox dem tuuri ndox du bu noppee mën nga jàppaat ah ba bëggee dem gannaaw kër nga dem gannaaw kër ba noppee mën nga raxasu jàppat kooku sax moo gën naa benn tànt ca ndar dafa jàngale alxuraan waaye ku tëxat la xale yu jigéen yi moo jàngal nag daf leen di wax ni ku ci bëgg génne ngelaw nanka ka xale yi ni ko xaju fi xaju fi mu ni wax ngeen dëkk waaw parce que loolu it xaju fi na nga tàggoo sax tuur ndox walla nga tàggoo leneen loolu kenn mësu ko gis mooy sunu waajur mooy sunu xarit mooy sunu kilifa Serigne Saliou Mbacké ci Touba yim nu yónnee yépp jot nañ ci yàlla na ko yàgg def te yàlla defal ko leer gu mu bëgg ci boppam ak njabootam ak ku ko ko yéene yàlla na ko yàlla defal la tabarkalla la bu ngeen fi defoon benn seconde sax rëy na ci nun ndax lii nuy def yéen ko moom lii nuy def yéen a ko moom tabarkalla tabarkalla kon nag nu jottali ko cant bi ma bi ma jóg léegi rekk li ma mujj yónnee ci lañ ma ko jox ma sog a dugg ci oto tabarkalla ak ya ko jiitu yépp bu tabaski ñëwee tabarkalla xar yi ma jox laa di tabaski sama xaritu bopp la nag booba nekkagul suba ma nga ca village am tabarkalla loolu la yàlla dogal tabarkalla kon nag fu nu ñaanale rek euh, ñu baax ñépp yonent yeeg ak taab yeeg yépp dugal ko ci biir nu ko yàlla defal yéeneem yépp tabarkal kon nag toogaay amul ndax yéen a ngi jëm ci lu mel nii tabarkal guddi gi nun ñépp ko bokk bége ko nag di ko jox yonent bi yonent bi piir kenn xamul lu ko indi fii ci Sénégal lu dul ni leeru yàlla la rek waaw dugg dugg ba ci biir néegu ñax yi dugg dugg ba kaw ga nga foog boo fa demee tey tabarkal la dangay waaru pour wax la ni yàlla bu dee sédd boppam dafa sédd boppam ba mu doy waaw kon nag ñu jottali ko cantu ñépp nag njaboot yeeg daayira beeg ñépp ñu jottali ko cant yi tabarkalla yal na ko yàgg def waaw Mm-hmm. mu mel ni kon xàmme lu am solo la waaye xàmme ci réewu aada yombul waaye du tee rekk dafa am loo xam ni moo lal philosophie mom Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa dan wax nanu jéem rek nanu jéem waaw ndax itam jéem farata la waaw yow jéemal rek waaw yow jéemal rek nak mo la war waaw mu melni kon suñu dellusee ci yonent bi wax ni xaqiqam moo folli aada yi te tabarkalla tabarkalla ci turu yàlla la ko defee yàlla ko naan nangam defal nangam defal nangam defal nangam mu yem ca képp lu dul xanaa bàyyi na fi ñaari naal yoo xam ni bu mësaan xëy mi ngi déglu ba xam sunu borom dana ko dimbale defal ko akt législatif ci kenn ku ne ci bëccëg bi nga socc juróomi yoon nekkoon na yitteem ba ñépp xam ko ci moom te ñemewu ko addu tànk yàlla defu ko acte législatif parce que bëggul teg kenn dara lu ko yàlla waxul ndox ku ku koo bindul koo bindul loo koy teg waaw bi ci des muy dëkkaale ba bi mu fiy jóge mi ngi xaar yàlla defal ko acte législatif buy may ki nga dëkkaale donn la seetal boobu pénc xam nga ki nga dëkkaaleel te bokk leen sant yàlla xëy ni la moo lay donn rafetal bay war sa digganteeg moom mu di ko def bu ko ñépp defandoo seetal na pénc ma di mel xam nga bëri démb la tubaab yi soog a commencé fële ca tugal ni comme fête des mères am na fête des pères am na léegi fête voisin mënul ñàkk te ñoo daan bokk immeuble kenn du nuyu sa morom mais léegi génn nañ ci ba ci wet parce que génn noppi gi li muy jur ci nit mooy stress baaxul moo léegi dañuy feetal noo dëkkoo mais dañ koy def fête bu yem dañu ko def nun ni nuy def ndax ni nuy def dafa génn yoon a yàlla moo def xeetu yonent bi di ummatan wasatan kon nag lépp looy def mu jur pëccëxoo bàyyi ko parce que pëccëxoo ñàkk teggin la ñàkk yar la te ñàkk kersa la ñun lu ñu ci man nitu aada lañu mais du ñu nitu xaqiqa moo tax lu mu dugg pëccaxoo ñëw ci te catastrophe la baaxul ndax Sidil Hadj Malick nee na jaamu yàlla jaamul bu bëgg dee waaye am na lu ko gën mooy nga jege yàlla te jege yàlla doo ko mën a am mukk lu dul ci ñaar yëf teggin ak kers ki amul teggin amul kersa ne jaamu yàlla ba xëy dee du jegeñ yàlla bu neexee yàlla sax mu faye ko aljanna waaye du ko faye boppam te nag li tax ñu ñëw ci kaw suuf bu caa gi di jaamu dem àjjana dañu bëgg ñu organiser suñu intimité ak yàlla fii ci kaw suuf pour wane ne ci kaw asamaan lañ jógee ah bu loolu amul kay jaru ko hmm? bu loolu amul jaru ko Si nous mënul notre ci organiser intimité avec le ciel si suñu présence fille a une signification hmm? te ni bi la chauffeur de taxi bi non la waree commerçant bi hein? Nous avons la wari c'est faisable Nous nañ mën nañ ko def njàng rek la njàng rek la ku am ku am koo nekkal te mu mët na mu war a mëte mën na la ko defal amul sax werante mais tant que defuloo ko nekkuloo ci liñ la sant tànk que defuloo ko nekkuloo ci liñ la sant waaw ba tax na kon pëcc baaxul yonent bi daf koy tere bëgg ko am na benn mag bu ko doon seeti defe naa Muawiyatu bnu Qurra sax la war nekk ni daal sooy bañ jant ba mu xëy nekk ci diggu asamaan danga ko nangu maa nga seeti Muhammad mu ne naka laa di solo kenn ku ne wax ko na mu war a solo doom bu jigéen bi ni ko jëlal sa manto ba jóge woon Faris kii ni ko sa bot yi ñu defare woon Inde lu nekk ñu digal ko am nañu ñaari bëccëg di seet nu mu war solo ba daal ñoom ñëpp ñu d'accord ci nam ko war a fa sa mag tabarkal la tabarkal ñu ni ko bii de soo demee ña fa nekk ñëpp yaa leen di daan mu daldi di bi mu ñëwee mi ngi fekk yonent baa ngi suwoonu ci suuf sol benn forog ubbi ñetti buton ya ca kaw ba mu janoo kawaru dënnam yi mu agsi rekk kenn xamul lu ko amee mu dawal loxoom pour laal kawaru dënnu yonent bi ndax mu sowee àdduna ak àllaaxira waaye ne mësuma gis mukk ñu vigilant ba àgg ci ñi ànd ak yonent bi waaw ne ma yëg ñu téye sama loxo te sama loxo dal ci baaraamu sànnikaayam ma gis ci benn jaaro ma foon jaaro nee na bu ma jógee ñëw sama waa kër ni ma naka mu ne ma ni leen ñaara nu rey kufru ak protocole ñaar moo nu rey kufru ak yeneen yonent bi yoonam yoonam même diw bi muy diwee yaram wi parce que xam na ni ëllëg yàlla dina ko ni der bi ma defoon ci sa yaram dénk la ko ndax daan nga ko diw parce que diw deru yaram daf ko dundal xamuloo ne am na ñu dul tocc mi ko abadan abadan te catastrophe la te li ci gën a yéeme du ko defee biir néegam dafay bàyyi ba ñëpp toog mu indaale mu indaale yëfam def ci loxoom dugal ci biir yaramam diwa diw ba nga janook ni muy diwe teppaxam yi parce que diw teppax baax na médecin yi sax dañ ci d'accord baax na ndax lépp loo xam ni dana dindi forox ci yaram rekk jullit war na ko def jullit war na ko def moo tax ci ni mu xamee jàngale du dugg ci néeg mukk diwu fa ñëw toog ci diggu mbooloo mi di def ci loxoom dugal ci biir yaram wi ba yépp mat waaw loolu moo taxoon mu jonkan ni xëy na yàlla dina ko may benn benn bés rekk mu wàcce ni na ngeen socc juróomi yoon ci bëccëg bi ba bi muy feebar feebar bi ko yóbbu ba mënatul yéey socc buñ ko raxasalee socc bi ba noppi dafa woolu doom bi sayyidatuna Fatima pour mu yéeyal ko ko parce que wóolu na gémmiñam ku set la bu ko defee mu jël ko di socc wante yàlla wàccewu ci benn acte bu législatif ni ku xam jikkoom ak nekk ba mu ko doon nekk bu la yitteelee di ko teg sa bopp te loolu rek mooy di am solo di nga ko teg sa bopp dëgg la nag euh, dentiste yi dañ lay diggal ni la même soccu boo ko dee def na nga wattu gaañ sa bopp na nga wattu gaañ sa ciiñ na nga wattu ëppal ko ba muy yëngal sa bëñ yëpp dañ la koy digal ba tey baax na kooku euh, dolleeku la rekk waaw rawatina dañu lay wax wàllu wàllu wàllu nga jël brosse li la ko digal te yooyu yëpp fekk na bëgg-bëggam la woon moom yonent bi fu ñu fekk jullit doo ko yàpp looloo taxoon ku setoon la looloo taxoon itam li mu daan wax ci njañ mu wax ko ci njañ dañ ko daan indi diwu zeytoon yi léeg lu ne ñu gis mu di ko def ci kawaram gi te kawaram demoon na ba mel ni sàcc nekk xaw kawaru neegar tuuti booboo ko gënaloon boobu ko gënaloon xaw dëgër noonu parce que dafa rafet dafa rafet ku daan yéem ku daan yéem yont yàlla yusuf la ci ci melo parce que yooyoo doon jikkoom te dara taxul lu dul xam gi ñu xam ni ñoom malaaka yay yendu te malaaka dafa set malaaka dafa set dafa yiw ku yendoog ñoom kay war nga mel ni ñoom loolu moo tax su ko defee yooyu yëpp dafa nekkoon yitteem euh, bu bëggee firi alquran te fekk sa gis-gis ëppul sa catu bakkan fokk nga wax musiba sëriñ Alioune Gueye nee na dama dem di nuy ji benn nit bu nga xam ni ñëpp dañu ko wax ni ku ku ku ku ku ku yàpp xam-xamu fiqh la nee na fi ma toog rekk mu bëgg ma ko woon te xamul nu muy def te julli gi jot na te ko moom dafa am gànt du jàpp ne mu war a tiim nee daldi jël tànkam dugal ci biir suuf si rekk loxo ko daldi koy awu ci loxoom ne xool ma ma ni ko ah, walaw bi naq la day ba ñu koy waxit dafay ànd ak teggin sa façon bii kenn du ko jëfanteeg boroomam waaw ah walaw bi naqli rek dafa jar nga fàtt ñépp yow kay àggal suuf rek eh, tiim ci suuf si walla nga tibb tuuti yóbbu ci sa biir nekk waaye fokk nga jéqi suuf si mu dugg ci bëtu ñëpp kooku du teggin te du kersa itam waaw

loolu mooy li ci nekk bàyyiwul dara waaye am na ci façon bu nga xam ni moom lu yéeme la te gis nga lii ma doon tontu sama sët boobule wax ko ni ko fànn bu ngeen bëgg jàng mën nañ leen ko jàngal ni di wax affaireu ésotérisme ak yu kenn xamul ñu deug li ci tariqa lepp nit mën nako jang deug la nak du lo jang rek deug lepp koku mom jangu tuba ak jangu naar jangu ñepp ci yam deug la nga jang lepp ken sakku ko waye la nga wara deg nga dégg ko faratal faratal su ko defé barki demb rek dajé savant yu ken xamul nañu toll euh gëna tawat ci sen bop moy façon bi len mathématique yi bloquer parce que nous ñu addition musiba la ci kuy def recherche dafa am baat bu ko remplacer Moi, interaction il le faut absolument C'est tel beaucoup. l'islam ou ba léegi ñu di c'est wetti seetal تعرفكم الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه سيتي كانت كانت لقلبي أهواء مفرقة تجمعت إذ رآك القلب أهوائي qu'est-ce que ce passion qui se club ce passion qui se salle de gym ce passion qui se fiancé ce passion il se tant tant dajalewuñu ko def ko benn doo dem buñ ko defee benn ba noppi benn bu ci nekk nañ ko jëmale ci wut yàlla xam nga ki jóg léegi di dem ci clubam wax ni maa ngaa dem ci club bi parce que daggit la ci sama dund te sama dund yàllaa ko moom xam nga kooku wàcc na parce que du fa def safaan loolu moo tax euh, bare leel fu ne nga dem fa fexe ba yooya collaborer jëm ci yàlla moo ëpp doole du tee nga def li ngay def parce que lekk lu tey sol lu teey yàlla terewu ko kenn lekk lu teey sol lu teey yàlla terewu ko kenn alquran lim ci wax ku ne gis na ko wante yàlla loo lekk walla loo sol te féetaliwuloo ko ko réere na ko te lu mu réere nga yàqu lool rek mooy li ci nekk gis nga yooyu bind aada nanguwu ko yooyu bind aada nanguwu ko xaqiqa moo ko nangu moo tax tànk yóbbu wuñ la ci xaqiqa formé la ci xanaa bàyyi la ci aada dañ lay tiitale xaqiqa bu ko defee nga daw ko te boo ko dawee doo dem ma ni la mi ngi mel na nga dem sa doom nekk ca université ba nga ni ko bul jàng mathématique parce que kenn mënu ko dégg du dëgg mën nañ ko dégg mën nañ ko dégg affaire tariqa yi ngay gis dara lu ci ump nit amul te it mënul mënul jéggi alquran mënul jéggi xadis te alquran ak xadis dañ koy jàng kon nag leneen luñ ci wax rek nekkul parce que dama gis temps yii yëpp am ñu koy junju temps yii yëpp dafa am ñu koy junj xamuloo ni sax savant yi nga gën a naw scientifique yi nga gën a naw wóolu wu ñu seen bopp wóolu wu ñu seen bopp parce que am na loo xam ni am na ci kenn ku wax ni li ko gën a jaaxal mooy découverte boo def. boo mënti def daf lay won ni du tànk bu jëm kanam mais tànk bu jëm gannaaw la parce que découverte bi bi ngay wut benn la woon waaye bi nga ko wuññee jural na la fukki yëf yoo xamul lan la te fukki yef yoyu fokk nga duggati ci ila yawmil qiyamati du soti motax so beugé jang diiné dang koy mëtal waye buñ la ci jangalé dara nga fortu ko la cey muju surtout bu domaine fiq ta fekk yam wara andal andul ak mom da ngay xey rek nek ben tàngkatu bopp bu nga xam ni kenn du mën dëkk ak yow la euh, sama mag ja waxoon dërgën ju ak euh, sëriñu euh, mor jama ba dana seen ilimaan ja def leen lëjëla lëjël ba dañu xëy ñoom ñëpp ku ci ne ëmb sa ëmb rekk defe ne nañ la jël si yóbbu jaanam waaw nee na loo wax rek mu ni wallahu shadidul iqab wax rek mu ni wallahu shadidul iqab ah nit ñi amatuñ ci pexe ba bilaal bi tàggu ko takk jabar moom mu ni du takk jabar mukk abadal abidin euh, ñu war ko ko jébbal ñu jébbal ko ko euh, noddul ci fajar ca yor yor rekk mu wokk mu ñëw mu ni ko yow daal su fekkee sa soxnaa la gënal sunu borom delloo ma sama tool delloo ma sama fas delloo ma samay caabi mu ni koy waay sëriñ bu ko defee noonu mu ko ah, kay parce que yow wane nga sa bopp ni jébbal la sa soxna rek tax ñëwuloo pour euh, noddu si ci fajar ah, yow kay xam nga ni moom ndeysaan moo jama triste lool lool lool bu xamul na muy def benn wëllëreem bu jigéen ni ko yéen seen góor gi yéen ko yaru bu ngeen ma ko mayoon léegi ma yar ko mu ni ko góor gi de ku ko tudd loolu mu rey la ah mu ni ko li ma doon wax ngoog waaye rek eh, ndaw si bàyyiwul bàyyiwul ba ñu xëy may ko góor gi koy indi nag góor gi ni bu mu ànd ak kenn na ñëw moom rek ñu ni ko lool kenn du ko def mu ne ak ah, kon ngeen bàyyi ko kon ngeen bàyyi ñu nekk fa di soow ba mu d'accord ni na ànd ak bàjjenam ah ndaw si ànd ak bàjjen bi ñëw rek eh, dugg ci néeg bi toog góor gi moom mi ngi jublu penku rek ami kurusam ba dal toogaay bi daal metti lool xale bi dey bàjjen bi ni ko demal ñibbi bàjjen bi daal di fabu ñibbi mu ñëw fekk góor gi fi mu toog rek mu ko yëkkati góor gi dafa tuuti yëkkati ko rek ñëw sànni ci kaw lal bi defeenal ko jàpp ci baatu sidditu baatam yi yoo ko gis nga sa sidditu baat yëpp dafa xomaag ndax naqari rek moo góor gi moo góor gi ba góor gi ni nemm waxatul dara mu jékki-jékki bàyyi ko fa rek dem toog ca chaise ba góor gi ni ko lu xew mu ko dama fàttaliku ni ñun ku jël ci ñun danga may neexal mu ni ko ñaata mu ni ko àddeet ah, du xaalis man li ma indi mën naa la ci dundal folla folla rek fo yooyu nga gis ci daara yi ñu fekk benn nit rek war ko muy raam naan mbuu ka na. ni ko mu dal di commencé yi mu dindi woon yëpp ci valise bi mu di ko delo. góor gi ni ko li lan la mu ni ko damay ñibbi ndax ñëpp waxoon nañ ma ni dof nga mu ni ko yow man ngay mu ko dedet la dama la wax sa jikko rey nit ñi gi ni ko déet te noo waxtaan rek mu ni ko waxtaan bu deme nan man kay boo bëggee rek ma war la nga dañal ma tuuti rek fii ah ba mu jugóor gi d'accord ci mu ni ko euh, mu xool gis benn tegu fas bu ndaw gi sëggal ma parce que sa gannaaw gi yëpp yàq la rek moo ci toogee daf may gaañ ma teg la teg góor gi ni ko nag duma fas man kenn duma teg moo góor gi ba góor gi d'accord ci teg gi waaye ni ko kenn duma noxura ko moo ma la nuxurawul ki eh, eh, eh, teggi dafay daanu di te kon may damay daanu moo góor gi ba góor gi d'accord ci ñu nuxura ko fekk wax na mor jamono ko gis nga man ko ñàkk fayda rek làppañ yéen góor gi daf leen a tàmm di leen indil fitna gis nga ci pantere bi laa lay teg boo déggee ma war ko rekk ba di ko dañal ubbil bunt bi bu ragal dara ubbi rekk ñëw te lii ma lay wax mu ni ko du caaxaan boo ko defee rekk dëkk bi am jàmm ah moo jamono ni affaire boobu dee doy na waar mu ni ko amul dara ba kuy def jàmm dëkk kay jar na ko waaye ba góor gi commencé di dañal noonu moor jamo bi rek ak si mu ni ko yow loo fi wut si mu ni ko damay ñaan si rekk ak tuub si nga delloo ma yéen ma jëlaloon yëpp mu ni ko jëlaatal yëpp ko jëlaatal yëpp xar dikk na fi sax jox ko sa soxna acca acca ni ko bu ko nit déggee rekk nga dee ndeysaan ñu continuer ci loolu waaye ñu yëg ci góor gi nii wallaahu shadiidul iqaab ba mu daan wax daal li ëpp léegi inna laa xafarun rahimun rek la ñu ni kon jàmm dikk na ñu ni kon jàmm dikk na yàlla àtte nag mu ànd ak mor nak ñuy doxantu mu ni ko waaw moor mu ni yi mbat da fac mu lu tang nga wax lol mu ni ko man kat dama gis ku ma jub rek ngay muñ mu ni ko ah, man de waxuma ken dara mu ni ko gis nga bu fekkee ni benn fànn rekk nga jàng doo dégg njàng ah? doo dégg njàng ndax mooy li imam Shafia yi waxoon imam Malik imam Shafia yi dafa jàng fànn yépp mais wàllu fiq nanguwu ko ndax boo waxee mu nii espèce u ixtikaar rek la maanaam spéculation rek la waaye du xam-xam am ci mag ñu ko ni def nga erreur parce que fiq ku bëgg mu jariñ la pire da jàng fànn yëpp mooy mën a tax nga dégg ko parce que pour appliquer loi walla loi bu amatul njariñ nga ne amul njariñ mais kooku ku jàngul lépp doo ko mën ah la Maodo tontu woon wa nasx injaase fi alquran fa fi gayrihi min baabi ahra yàlla atte muy ndaw lu jàng lu ne moom imam Shafi'i mi kenn mënul fexe ba dugal ko ci loolu boo waxee mu ni du xam-xam ba amirul mu'minin dégg ni dafa am benn mouvement bu sosu ci Bagdad te ñetti nit ñu dangereux ñoo ko fa def tudde ko mouvement alawite dajeeg juste imam Shafii di ñëw Bagdad yàlla ate mu déggi leen dem seeti leen ñu informé mbuur bi wax ko ko ni ko daal boo ci sàkku léegi pexe mën na yaatu te surtout gan googu la ñuy wax ku yéeme la mu leen fu mu jógee ñu ni ko ci banu hashim la bokk mu ni kon nañu fexe ba woo leen ñoom ñiy doxal mouvement alawit bi mais moom itam nañ ko woowale ma waxtaan ak ñoom ñu woo leen ñu dem ñu dem au palais moom imam Shafi'i buur bi beral ko jataay am lu mu déey chefu protocole bi mel ni yi dafa am lu mu yëkk fekk na ñett ñiñ ko doon wax ni ñu dangereux lañu moom lañu wax ni moom la leen wax ni nañ leen jàllale ca teraas ba le sow pour rey leen parce que pour ñoom yooyu du dara en télé dangereux duñ fi nekk di seetak di tëj di def leneen dañ koy woo mu ñëw rek ñu may ko bu ndekkee ba noppi ñu jàllale ci terrasse bi rek rey ko mu jeex ñoom ñett ñëpp ñu rey leen mu nekk fa nag di waxtaan ak Chafi'i mais Chafi'i yëg na ni ñi mu àndal rey nañu leen xam na ko mu ni ko est jàng nga Muwatta bu imam Malik mu ni ko déedéet parce que fan na la bu ma soxlawul mu ni ko soo ma déggaloon di nga ko jàng parce que yow dana la amal njëriñ di ko ci xiir di ko ci xiir di ko ci xiir ba bi muy génn bi muy génn nag chefu protocole bi dab ko jox ko benn mbuus bu def lu war a mat cent mille dollars ni ko amirul mominin na ma la ko jox bi mu génnee ci biti mu gis fa njabootu ñi ñu woo ndeke ñoom it dégg nañu woote bi rek ñu ñëw parce que xam nañ ni dañ leen di rek mu jël alal jiñ ko jox séddale leen ko génn dem ba ca koñ ba kenn ci waa pale bi dab ko dindi alal jox ko mu ne ko ah, surga nga surga la surga du jox moroom ma xaalis ko jégal naa la ko ba ni mu décidé pour seeti imam Malik pale bi bindal ko lettre aux mu dem Madina parce que imaamu Malik moo nekk Madina bi mu ñëwee ñu ne ko woon na jaar ca gouverneur ba pour mu yóbbu ko ci imaamu Malik parce que imaamu Malik benn nit mënu ko gis kan la gouverneur bi gis recommandation bi ni ko ah li ma laa xamal daal mooy sawaru mukk mukk mukk mukk ndax dama xam Mali dañu fay dem mu woyofal ñu ci façon bu nga xam ni mu kàllaf du ko nangu wax wax wax mu ne ko Bagdaad dama yebal mu soog a moom ñu dem mais pour gis ko rek dal di poser problème dem ci kan lañuy jaar ana chef protocole am ñuy seet ba daal mujj nañu affaire bi agsi ci Malick ci boppam Malick ni leen fu ñu jóge ñu ne ko kenn ki ci Banu Hachim la bokk kenn ki mooy gouverneur bi ñoom ñëpp Bagdad moo leen yabal ci secrétaire yi ni ko bind leen not wax ni bu fekkee dañu gàpp ñu def ko ci kayit gi ma gàgganti leen ñu ñibbi ma tey du bés bu ma mëna a recevoir nit ñu ñëw wax ko ni ne su ngeen amee gàkk ñu ni déedéet dafa ñëw pour jàng si la te itam nit ku am solo la ñun dañu ko gis rek xam ni nit ku am solo la daal ko koy wax nag wax wax wax bon mu ne nañ leen dugal si ñu dugal leen ni nañu ko xaar imam Chafi'i yi nee na keroog la jëkk a gis nit di lox ba teqali teqalikook sama sako nee na mësuma gis mukk ko am personnalité comme imam Malik nee na dafa agsi ci sama kaw dama tiit nee na mu recevoir ma ndax li ma bokk ci banu Hachim ne ni ma loo doon dox ma ne ka mag ñu bari dañ ma digal pour ma jàng si ci yow mu watta nee na mu ni ma na def ak alquran ne ko wattu naa ko mu ni mën a nga def ak pireem ma ne ko firil naa ko sama bu ci yàlla tudd xam naa kan la ci jublu parce que linsaan bu yàlla tudd ci alquran nit la ci jublu mais nit kaa jarul ñuy tudd turam ci alquran mu ne ko li ci jamono nangu it xam naa ko lu ci jamono nangootul it xam naa ko di ca dem ak moom ba imam Malik moom mi war a jàngale faf di jàng dafa mujj ni ko shaanuka inda allahi azim shaanuka inda allahi azim ma mooy xamuloo sa bopp xamuloo sabab dal di santaane ñu topp tool ko appartement yépp nag ba mu noppalu ñetti fan mu soog a commencé ak moom pour jàngal ko mu watta juróom-ñeenti fan la ko jàng ñaari xaaj yi jeex mu ni ko naka mu mu ni ko soxlaatuma ci dara ndax li ci nekk yépp wottu naa ko yàlla dogal li ko rey moom imam Shafii mi ngi jóge ci lu tuuti lu mu àtte lu tuuti lu mu àtte parce que dafa am ku ñëw ni ko dama tayle sama jaam mu nga cëkka ma ko tayle fayaguma pour ñu delloo ma ko est-ce que mën naa ko goreel nu ko mën nga ko kay nag commencé dégg nga wante fekk na dafa doon organiser benn mouvement today esclavage ki tayle jaam pour moom nit nekku fi objet la ci cadre lislaam loolu naka la mën nekk tayle jaam te bëgg na ko saafara mais xam na jaaykatu jaam yi doole bi ñu am kenn xamul na

Lolo fi Islam, l'islam fexé bo woné ni doma dama du bant mboolem ñiy jaay jam nak dajalo waxtaan ni buñu ko attaqué ci mbir mi rek feñ kon dina fi wat atté bu nga xamné ci la ñuy jaar ci benen mbir pour dal ci kaw ñu d'accord ci atte ba ca tegu mooy mu dem wax ni ku jënd sa suuf yaa